nga mat ko sëkk ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax fu nu toll dañ lay ñaanal ni ko Ablaye mbay peex waxee rek noonu la demee ba mu xëyee maanaam dispositif sécuritaire bépp avant mu ñëw ci yéen saytu na ko neuf la commencé ci post yëpp ànd ceeg ñi nga xam ne fi nekk ñooy saytu kaaraange gi muy ñi nga xam ne ay colonel ak ñoo xam ne lépp loo xam ne kaaraange gi rek dana ko laaj rek ànd naa ak ñoom tey muy état major bi ñoom ñoo ñëw nii ñoo ñoo ñoo nekk ci yow. di ñaan rek ni ko Ablaye may Peex waxe moom taalibub Sëñ Tuubaa la ndax fi mu nekk bu jógee fii këram la jëm waaw day màggal euh, nga ñaanal ko bu baax gendarmerie gii nga xam ne amuñu lul moom. yàlla gën noo jàppale bu baax a baax a baax ba jàmm rek di am ndax population bi moo tax gendarme yii nekk fi yii saa sax population bi duñ comprendre waaye fi mu nekk tànk jàmm ngi am ñoom ñi duñ leen gis ñu génn magistère am bi mu fi toog ba nëgg ni wax dëgg te ñuy ànd moom at mu nekk ñu ànd moom bi biñ ko fi tegee fii la njëkk ñëw nga ñaanal ko sëñ bi ñaanal ko ba nëgë ni ci lool yi la nekk ma ngi lay sant nag particulièrement ndax ban fay jóge dafa ne bu ma jógee ci sëñ bi day Cheikh Bass moom danaa ko ñaan danaa ko danaa ko sant ndax lii day fépp foo xam ne waaw fu soxlaat fu ne Cheikh Bass jàppale nañu loolu nag ba ci Masaalikul Jinaan moom mii def na li ci lim man ak lim mënul ngir ñëw ànd Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy borom liggéey bi siyaare si ko ngir xentu yi nemm ko fi nga xam ne fii liggéey bi toll fépp ñu di ko delloo am nuyoo di ko sant bu baax di ko gërëm ci li weesu ci yitteem ak taxawaayam ci réew mi ak taxawaayam ci dëkk bi ndax li ko Samba Jaw waxee léegi rek am nga fi ñaari cër cër bi jiitu mooy cër bi mu yor nekk général yilif gendarmerie gépp loolu du benn cër beneen bi ci des it di waay juróom di taalibe mooy itam di taalibe kon ñaari cër rafet lu taxawaay bi ci màggal gi ndax laata muy accident moo ko leer lépp fekk na ñi jëkk wax ma seen taxawaay te at mu jot noonu ngeen ko daa defee ren jiitam taxawaay bi gën naa rafet ndax am na genn kilifa ibrahim Ndiaye asru mi nga xamne yeri mom yene sekk a bi ci suba wax na ma taxaway bi nga xamne ne boy def nañ ko ngir nit ñi ñu accé nang nang ngir baña dajolo ci buntu dekk bi ba tax dik ti yombu lool na kon taxaway bi ñu ngi leen ci gëreem bu baax di ci mbaram réunion ñoy Cheikh sar mi nga doon yebal ñu ngi doon ñew di indi xalaat yu rafet lepp ngir lu bëgg lu jagal liggéey bi ta and ci xereñ ak xam seenu liggéey. xam ne réew mi yëpp ngeen koy defar xam cër bi ci Touba am kon ñu ngi lay delloo ak cant ak ngërëm la ñaanal ci yàlla ci barkeb Serigne Touba bis bi nga xam ne amul lu dul moom di bisub Cheikhul Khadim di bis boo xam ne mooy bis bi ëpp ci Sénégal bokk ci bis yi ëpp ci àdduna di ndamul jullit yëpp di ndamul senegal gépp di ndamul yoonu murid ngeen ànd ko ñun taxawaay ci taxawaay boo xam ne yéen yéen ñu ko mënal may lu suñu bopp kon ñu ñu ngi koy sant leen ci gërëm di ñaan ngeen yàgg fee ñëw te yàgguñu fi fekk te lu ngeen ci jëf rek ngeen day ceeg béykat Sëriñ Tuubaa